waat leen euh, màggalu poroxaan xam ngeen ne tey jii la euh, képp kuy euh, fidel dem nga tey jii foofu ca poroxaan màggal maam jaara Bousso Mbacke délégation bi nga xamante ne moom la nguur gi yebal ki ko fa teewaloon ki ko jiite woon kon di ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal dinay wax li rafet ci maam jaara Bousso taxawaayam ci wàllu mouridisme dañuy déglu Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur dañ ci am mbégte mu rëy bi ñuy jóg di ñëw président yàpp ñu ngir bu ñu ñëwee teewe bis bi ànd ko ak yéen ndax ku ne xam na ni soxna suñu maam soxna jaara fu ñu ko tuddee xel yépp dañuy dem ci jikko yu rafet ak pas-pas waaye day dem ci mbaax ak jaamu yàlla ndax ni ko sa waajur wu baax wi Serigne Mouhamadou Bachir Mbacké melalee ci minanul baaxil xadimi dafa wax ni soxna jaara di Mariama Bousso dafa doonoon jigéen ju baax te sel jigéen ju am diine jigéen ju bari lu muy jaamu yàlla ci ay julli woor ak saraxe Serigne Bassirou tekki ni mu doone jigéen yoo xamante ni dafa sàmm woonte woon digganteem ak boroomam waaye sàmm woonte woon tamit ak digganteem ak ki ko yàlla boole loon daan yar njabootam ci diine di leen nettali dundu gaañu baax yi ngir ñuy mën a ñuy mën leen a roy ca nañu nekkee woon loolu mooy waxi Serigne Bassirou ci Minanul Baaxil Xadim kon sunu maam soxna Jaaratullaahi ndam la ci bépp jullit rawatina ci bépp murit ndax jikko yu tedd yi mu làmboo woon ak taxawaay bu am solo bi mu taxawee woon ci wetu Serigne Mamour Anta Sali Mbacké ci topp ko ak liggéeyal ko moo tax tey kenn natablewul ni royukaay bu mat sëkk la poroxaan lañuy des Pape mbay Diaw maa ngi lay nuyu mu ngi ci téléphone bi nuyu naa la Pape Mbaye alors yaa ngi foofu kon ci subaak léegi lan la ñu mën a jàpp ci màggal ga foofa. waaw fii ci màggal gi nag li nga xamante ni moom lan fi mën a jàpp euh, tey naam tàngoon na amoon na poussière ci dëkk bi mais teewul fidèles yi ñoom ñëpp ñëw nañ fi nga xamante ni moo di ci Porokhane daal di fi màggal li nga xamante ni moo di màggalu Maam Jaara gi ku wax Porokhane nag daal di wax teenu Maam Jaara foofu nag rang bu metti moo fa amoon ndax ndaxte ñëpp ñi nga xamante nii danoo ñëwoon ca bërëb bu sell ba ku ci nekk ku nekk rek da ngay bëgg a jël ci ndox mi daal di yóbbu yeneen bërëb yi nga xamante nii moo di moselle bi tamit rang yu metti ñoo fa aman ku nekk di bëgg a ziare ak fi nga xamante nii moo di ci ci mosquée bi ci cérémonie officielle bi nag gannaaw ba nga xamante ni kii di Antoine Félix Diome bi mu waxee ba pare ci di Serigne Fallou Ibn Basirou moo wax ci turu xalif bi moom nag bi mu jëlee parole li mu njëkk a def rek mooy daal di rafetlu liggéey bi nga xamante ni gouvernement bi def na ko ak taxaw gi nga xamante ni taxawoon na leen ko ci cérémonie bi ndaxte ñoom nee nan ci màggal gi doléance yi nga xamante ni moom la ñu amoon loolu lépp daal di nañ koy satisfaire bi cérémonie bi jeexee nag Binta daal di délégation bi ci la ñu àndee daal di dem ci ki nga xamante nii di moo di xalif général des mourides Serigne Mountakha mu dal di leen di ñaanal bi mu paree nag ci la leen yeewi après ci la nit ñi mën a pare doog dem ba léegi nag fi mu nii nit ñi ñu ngi fiy bëri xam naa ne màggal gi day daal di wéy ba ci guddi gi. Pape Mbaye euh, Diawo euh, nekkoon kon foofu ca Poroxaan wala sax ma nga fa ba ndax nee na màggal gi dafay wéy euh, ba ci guddi gi ñu ngi lay gërëm di la sant yéen beneen yitte boo xamante ni am na mooy yokkute bi nga xamante ne le ministre Assome Diatta ministre du commerce moom moo génnee arrêté barki démb daal di ci yokk nag ñu ni fukki dërëm ba ci biir Ndakaaru ci biir Sénégal ëpp na sax fukki dërëm bu tegu ci kilo suukar si tey nag président de la République jël arrêté kon boog jàpp leen ne suukar si amatul benn yokkute président dindi na ko ba mu set wecc euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Momar Ndaw euh, ne jiite Ascosen nee na Assome bu muy jël dogal boobu conseil national de la consommation yëgul tinul ki nga xamante ñi nga xamante ne ñooy waa UNAC waa yeesal di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem dañ ciy ànd ak Alhassane Ba ak Mohamed Dieng ab xabaar la bi nga xamante ni woy jëfandikoo yi daan ci kontaan lool njiitu réew mi dakkal yokkute bi ñu nemmeeku woon ci njëgu suukar si. ñun nag kontaan nañ trop tey jii bi nga xamee ni président dégg na suñuy jooy ak ñuy yuuxu ba tax mu ne delloowaat na arrêté bi maanaam annulé na ko su ko defee suukar dootul yokku kon nekk na loo xam ne ñu ngi ko ciy remercier bu baax nee na aussi nañ xoolaat prix yeneen produits yi ndax xam ngeen ne. am na fi yoo xam ne yokkoon nañ ko parce que dafa yokkoon bitim réew ñu xoolaat bu fekkee bi nga xam ne moom yo yokk bitim réew delluwaat na ginnaaw bu boobaa ñu mën koo delloo ginnaaw. dogal gi nga xamante ni ñëpp la bettoon muy arrêté bi nga xamante ni ministère mi yor wàllum njënd meek njaay mi si waloon na ko. Euh, fii réew mi toll ci euh, feebar bi nga xam ne daanaka jóge gu fi may gàllankoor na foye yëpp gàllankoor na euh, ménage yëpp gàllankoor na économie bi nga xëy defaat ci lu mel ni ah métti na métti na ci nit ñi te su métti ci nit ñi il faut commerçant yëg ko kon ñun en tant que UNACOIS boolewuñu ci xalaat yi. Euh, yëgaluñ ñu ko te su fekkoon woo nañ ci waxtaan ci man naa am ñu jox leen suñu xalaat ak xool nu ñuy fexe ba àndandoo ngir woyefal panier euh, de la ménagère mais fi mu toll nii moom ñëpp ñu ngi jàmbat. xam ngeen ni li nga xam ne mooy produit homologué dafa am procédure boo xam ne moom la ñu war a respecté pour que mu mu jaar yoon maanaam suñu bëggee modifier prix bu mel ni prix du sucre. nga xam ne dañ ko homologué dañoo war a jaar commission technique boo xam ne experts yëpp dañuy ñëw experts yu industriels yi experts yi ñu koy defar experts yi ñu koy jaay experts yi administration des consommateurs yi ñoom ñëpp ñu toog waxtaan ba génn dëkk li nga xam ne mooy structure des prix suñ ko defee ba pare ñu jébbal loolu li ñuy wax conseil national de la consommation nga xam ne ñëpp a koy fekkee ministère du commerce moo koy présider. buñ sukkandikoo ci àll jën conseil national de consommation warul toog lu yàgg te dajewut li ni mel dana tax ba dogal yi ñuy jël. ñëpp déggoo ci ana kañ la euh, grève bu jàngalekat yi du jeex loolu la ñëpp di laaj moo tax tey jii euh, demoon nañu seeti waa SAEMS bokk ci euh, G7 ñu ni ñoom daal loolu dépendrul si ñoom ci nguur gi la dépendre bu fekkente ne bëgg nañu grève bi dakk ñu delluwaat ci classe ba rek si ñoom la des bu ko defee ñu désamorcer loolu ñu wax la crise tey jii demoon nañ fa seeti leen ndaxte te mu mel ni itam démb ci conseil des ministres président de la république wax na nu mu gën a gaawee nañu waxtaan ak jàngalekat yi ngir ñu mën a delluwaat classe ya lu ca mën a am na ciy ànd ak Marcel Farba Maroum nañu fexe ba fonds yi nga xam ne day jóge bitim réew na nañu xam naka la ñëwee ñaata la naka lañ ko utiliser fan la dugg présentation boobu moom la ñuy def fi mu ne loolu mooy li ñuy wax transparence bañ defee étude bi nag Sénégal ak Côte d'Ivoire Sénégal li mu wone mooy donte gis nañu xaalis bi ba ñu koy togg ba ñuy fexe naka la ñuy defee riposte bi société civile bokk ci woon tey ñu ngi ñuy defaral présentation ñu ngi koy rafetlu kuñ mën a ñëw daal di toog daal di ne un milliard cinq cent millions yi nii lañ ko utiliser ñu ne nag ëllëg yu mel noonu bu amatee nañu fexe ñu pencoo ko ñoo ñëpp waa Sénégal yëpp daal di àndandoo xalaat daal ne waaw lii bés bu amatee naka lañ ci fagaroo boo bokk reportage Marcel Farba Maroun di ngeen ko amaati suñu yeneen i xibaar ki ngeen doon déglu moom moo jiite euh, ki li nga organisation boobu de la société civile euh, bi ñuy wax euh, SICODEV Ursula von der Leyen ak juróomi membre yoo xamante ne bokk nañu ci collège bi dañu ñëw nag Sénégal pour daal di renforcer loolu ñuy wax coopération bilatérale di préparer itam sommet Union européenne Union africaine Union africaine ba war a am ca Bruxelles moom nag njiitu réew mi tey jii daal dinañ leen woo woo na leen ci waxtaan boo xamante ne dañ doon waxtaan ba xam euh, yenn sujet la ñuy waxtaanee ci sommet ba euh, ci saasa euh, président de la république Macky Sall daal dinay wax ndax Sénégal day waaj nag génne ay vaccin yong yi nga xam ni moom mooy xeex ak virus boobule dañ ciy teelu reportage Abib fay Pape Sangone Mbaye laata muy dellu tugal tukkik nemmeekom bu njëkk ci biir Afrique Sénégal la ko jagleel waral na njiitum réew mi Macky sàll dalal ko ñoom ñaar ñu waxtaan moom moo jiite commission union européenne bi di la von der Leyen ñaari autorité yi weccoo nañu ci lépp la nga xam ne fas yéene nañu ko waxtaane ci some union européenne union Afrique bi fa yéene am. notre ambition commune africain européen pour suñu bëgg-bëgg mooy suñu ko partenariat bi ñu gën koo seetal waaye tamit gën ko dëgëral ba tax na itam ci wàllum jëf loolee rek lay tënku. waral na itam ci biir sommet bi des nañuy waxtaanee jàmm ak kaaraange waaye tamit nañuy xeexee li nga xam ne moo di terrorisme bi. la sécurité de la lutte réew mi Macky Sall wax. ne Afrique jot na mu defar li nga xam ne moo di vaccin yi ñel wàllum mbas mi. mais de la riposte jot na ñu jàkkaarloog lii di mbas mi li nu mel waral na Afrique dafa war a defar lii di ay vaccin boppam. bu ñu xoolee institut Pasteur nekk nañ ñoo xamante ne ay champion lañ ci boobu rek domaine faaw rek ñu mën a defar li nga xam ne moo di vaccin yi lii day wane nañu ñoo moom suñu bopp moo xam ci wàllum pharmacie la moo xam itam ci wàllum wér-gu-yaram la fii ci diwaanuk Afrique c'est notre stratégie globale d'investissement. anam ba ñuy àndee des nañ koy lal ci wàllum transparence waaye itam nañ koy gën a dëgërale wàllum bon gouvernance ca la bokk lii di bien-être askan wi nag doon na loo xam ne lu ñu soxal la ñun. des jóge na ca réew mi dellu ca diwaanu tugal waaye fii la bàyyi équipe européenne bi ñu gën a wëyal liggéey gi. rawatina yenn ci ay liggéey yoo xam ne ak ndaje yu ñu fas yéenee am ci ab fàttali rek ci kàddoom mu ne Union européenne at gu jot dana dugal treize mille milliards francs CFA ci biir Afrique. Daouda Dia euh, nekkoon kandidaa euh, benn Bokk Yaakaar te gagné euh, mairie Orkadiéré tey jii la ñu ko doon installé moom nag Daouda Dia questeur la itam ci assemblée national bu Sénégal nee na li yitteen bu bu njëkk moom mooy sauver campagne agricole ba foofa ndax ndox ma ren daanaka demewul noonu leeral yeeg Ali Bandel moo gàddu ndam lii ci xeex bi ñeel contrôler commune bu gën a mag fare ci département bu la Daouda Dia nekk premier questeur ci assemblée national door na ñaareelu mandat ci bopp commune bu Orkadiéré koordinateur départemental bu APR bi nekk nag rak ci Arouna Moussa Dia di émigré boobu nekk ca Burkina jege lool njiitu réew mi dafa sax présente woon ab liste nafoore ngir contenir frustré yu bari ji seen biir camp mujjee kon marqué territoire ma kontaan ba pare am fierté comme ni nga ko xamee mairie Orkadiéré sama mairie la woon maa nekkoon maire léegi dañ ma réinstallé encore euh, si man mandat. léegi nag eh, ñëw naa fi ni tey ànd ak samay sympathisant samay militant kontaan trop am na fierté tamit ñëwaat fi tey. seen yëngu-yëngu gën fës nag mu ñeel wàllum agriculture ak investissement yi nga xam ni amal nañ ko daanaka ci dëkk yépp fare ci commune bile maire wu bu bees bii rafet lu jéego yi ñu ne njiitu réew mi def na ci diiru juróom-ñett at yi nee na xaar amatul lépp rek ngir sauver campagne agricole contre saison bii ñu ne. Euh, euh, président Macky Sall def na fi lu bëri ci région du fleuve globalement am aménagement yu am important def nañ ko mais ba léegi y problème toujours soit coordination mais nit ñi daal toujours y a des problèmes léegi problème yooyu lañ bëgg xam lan moo tax toujours problème mu ngi am te xam nañ ne suñ defulee agriculture contre saison mbir de dox donc léegi actuellement la dégg naa ñu ngi pomper julal ñu ngi commencé mais dafa am jafe-jafe parce que xaw na tardé lu gënoon mooy suñu paree bale rek ñu enchaîner beneen bi comme ça ñu ñu tardé rek deuxième suñ ko defee tamit si nawet lay lay ñor mu indi encore ay jafe-jafe donc coordination boobu lañ bëgg ñu régler ko définitivement ñu xam kañ la ñuy démarrer campagne et suñ démarrer comme ñoo maîtriser ndox mi xam nañ kañ la ñuy démarrer ak kañ la ñu war a terminer suñu campagne. xeex bi ñeeloon contrôler dëkkub orka jërë bi jeex na Daouda Dia gàddu ndam lii waaye ñuy xaarandi euh, lii nar a tukkee ci cour d'appel bu Ndar fa nga xamante ni liste départementale bu Nafoore dafa fa dugal ab recours ngir contester résultat yi ñu siiwal. beneen maire boo xamante ne installé nañ ko tey jii ci beneen diwaan Thiès noor di biram Souleye Diop euh, nekkoon candidat Yewwi Askan Wi moom nag lu mu bëgg a indi mu ni mooy beneen façon de gérer les municipalités maanaam rupture dañuy dem euh, Thiès fekki fa Cheikh Anta say la tiir Monsieur Birame Souleye Diop au nom de l'État et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de maire de la commune de Thiès Nord. ba ñu dem élection ñun ñëpp dafa am kuréel yoo xam ne ñoo ñu solal yére ñii sol verte ñii sol jaune ñii sol rouge ñu dem jàkkaarloog ñu dëkk ci biir Thiès Nord. ngoon jot ñu tànn nañu yow yabal nañu ci municipalité ba yow yabal nañ la fa yow yabal nañ la fa ma bëgg a wax ni bu kenn dugg ci municipalité bi fii di jéggi bunt yi di am xel ñaar naan fii par parloo dina fi am duñ ko fi nangu. fasuñu ko yéene doxale te duñ ko doxale incha allahu rabbi ñun ñëpp benn lañu ndax su ma duggee fii xool ñi ay organisation yónni fii ñii suñuy rakk lañu ñii suñuy xarit lañu ñii suñuy mag lañu ñii suñuy kilifa lañu ñun cees Nord benn rek lañu nañu déglu suñu population ñëpp am nañ soxla yu bare bare bare yoo xam ne ñu ngi ñu ciy xaar le temps ne peut pas la population na pas nañu déggoo te dox doxal dëgg def dëgg waxante dëgg te bu ñu raggante raggante ginnaaw loyauté war a xëy heure xëy heure wala def liggéey sàngam def ko ba mu mat ak lan dilligence ki soxla bu bindee nañ ko tontu citoyen bii ñëw nañ ko déglu li muy xaar bari na parce que dëkkin wi war naa ñoŋ nekkin wi war naa ñoŋ war nañoo mën a fëgg sunu dënn na ñun Thiès Nord nii la ñu mel ndax def nañu fi lii def nañ fi lii war naa mën a nekk ndax compétence yi am na fi Euh, commune am euh, wala wak waa commune am euh, loolu nag mooy yittey Abdou Karim Sall di beneen maire boo xamante ne installé nañ ko tey ca Mbaaw dañ koy déglu moom Abdou Karim Sall ci micro Malick Diop. Je veux désormais Cyprès laay fanaan waaye mbaaw laa dëkk loolu nag dafa am lu mu tekki Cyprès laay fanaan waaye mbaaw laa dëkk quartier yépp localité yépp laa yemale je serai toujours à vos côtés li ngeen ma defal je considère que être élu maire n'est pas un privilège mais un sacerdoce da ngeen ma sas da ngeen ma sas loolu laa jàpp loolu ci urne dangeen ma fal parce que dangeen am yaakaar ci am yaakaar ci équipe bi ma àndal et incha je ne trahirai jamais votre confiance beneen maire boo xam ne installé nañ ko moom mooy Ousmane Sonko nekkoon candidat Yewwi Askan Wi euh, mu nekk nag euh, maire de Ziguinchor daal di fay jëlee ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye balde euh, bi ñu ko installé ba noppi moom Ousmane Sonko lu mu wax moom mooy ne mi ngi tàllal loxo opposition bi nga xam ne mi ngi siégé ci biir conseil municipal ba naka noonu mi ngi woo nguur gi moom Ousmane Sonko ci collaboration ndax liggéey bi mën a yemb dañu koy déglu Ousmane Boubacar Dias yi ñu def suñu kéem kàttan pour fañ ñu fal ñu fexe ba ñi ci gën a kawe ñu fexe ba nekk foofu waaye li ñu ràññee fii Sénégal mooy bu ñu demee ba yegg foofu nag la askan wi doon xaar ci ñun safaan ba la ñuy def kenn ku nekk tal lu ngi dugal poosam ak lu muy séddoo ci li nga xam ne ñépp ko loolu nag ma teel ko wax fii fii leen man nekk ci mairie Ziguinchor loolu du fi amee tey tey duñ ko waxaane duñ ko négocier du nag lu ñuy yedd nit wala ay menaces waaye suñu responsabilité la en tant ñu wax ko ñëpp dégg ko ñu wax ko conseil yëpp dégg ko waaye ñu wax ko askan bi ñu wóolu dégg ko ñoom it liggéey moo ñu tax a jóg te liggéey rek la ñuy def wax naa ko fii keroog ci bés ba mairie bi soxla moo fi salaire soxla moo fi indemnité soxla moo fi avantage liggéey bi moo ñu tax kon la ñu bëgg li mu bëgg mooy sentir ni ñii liggéey moo leen tax a jóg bu boobaa boo demee ba ba fi nga tëlee askan bi nga xam ne fii tëlee nga def nga li nga mënoon def yépp en tant que kon loolu laay xaar ci chaque et chacune di fëttali ni liggéey bi aw ci ku ma ci bett une fois qu'on est conseil on tous conseillés ku ci bokk liste bi ku ci bokk liste bi Benno ak ku ci bokk liste Yewwi ñoom ñëpp ay conseillers les bon feuilles de la rédaction tey jii nag euh, di jox euh, kàddu journaliste sportif bi ñuy wax euh, Mamadou Koumé moom nag dafa génne livre daal di koy tuddee Sénégal la saga de l'équipe nationale de football mu mu toll nag ci téeméer ak juróom-benn fukki page 60 ans d'histoire mu boole ci nag ay documents yu ama am solo dañ ciy déglu Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy bi ñuy wax ci bile téere fan yee ñu génn nag bëri na ñu doon laaj ana lan moo waral bile tànneef lan moo tax foto Sadio Mané bi ñu def ko ci couverture bile téere mu mel ni bindkat bi dafa xamoon ne gaynde bu Sénégal bi dina am taxawaay bu mucc ayib ci bile téere tamit may na ko mu ñëwaat ci taarixu gaynde yi. boo jëlee téere bi am na ñetti téeméeri footballeur yoo xam ne wax wax naa ci ñoom. waaw ci commencement bi ci door bi euh, ci année soixante yi ba année deux mille yi. bi aussi dama gëstu ci ñooñu bind ci ñooñu ah pour vraiment. que euh, presse bi. ci jamono ji ñuy màggal gaynde yi nga xamante ne ñoo jël ndam li fële ci Cameroun livre bi ñëwaat na ci ñi fi nekkoon démb. Euh, liggéeyu ñetti at la boo xamante ni dama dem xool ci journaux yu yàgg yi bon match équipe nationale match yi mbat nañu juróom benn téeméer ak lu teg. ci bile téere bindkat bi di Mamadou Koumé ñëwaat na ci ndorteelu équipe nationale bu Sénégal joueur ñi ci gënoon xarañ ak match yi ñu jonganteel. dama gëstu ci ñooñu bind ci ñooñu ah, pour vraiment que euh, bi euh, mën a am euh, un document bi nga boo xamante ni mën na ci basé wu pour pour pour liggéey. téere bi tamit may na bindkat bi mu delloo njukkal entreneur yi fi jot jaar ci ñooñee nag mënees nañu wax kii di Aliou Cissé. moo ci gën a kontaan. du du footballeur yi rek du ñuy joueur rek entraîneur yi la ci équipe nationale bi mu dooree ba tey vingt sept entraîneur la ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaari entraîneur la euh, euh, président wu fédération yi la dix sept président de fédération ah euh, ministre yi bare nañu ñoom tamit ah mën nañu ñaar fukk ak lu teg ñoo ñooñu ñëpp équipe nationale dafa amoon pour ñoom solo. bu ñuy wax ci li ñu jël Coupe d'Afrique bokk na ci li nga xamante ne entraîneur bi di Aliou Cissé am na ko wante tamit démb am na yeneen gaynde yoo xamante ne doon nañ def seen kem kàttan waaye ci atum 2022 bi nag ñu ne guleet la Sénégal jël Coupe d'Afrique indi ko fii ci réew mi Aliou Cissé yeey euh, ndax nag li mu am ndam la te ñëpp ci kontaan dañuy daal di dem euh, waxtaan ci leneen loo xamante ne kenn kontaanu ci mooy prime yi nga xamante ni euh, président de la république daal dina koy jox ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci délégation officielle ba demoon ca Cameroun ci Coupe d'Afrique des Nations dafa jur coow lu baree bari ndax nag ci biir fédération sénégalaise de football tey jii record du groupe du journal groupe Futur Média ñoom ñoo ko bind di expliquer ana lan moo ko waral dañ koy dañ di Bakary Cissé ci micro Chérif Dia. ñu ci bëri ñi nga xamante ne ñoo nekk ci comité exécutif bi jàpp nañu ni eh, fédération bi ak ministère de sports nu ñuy doxalee yëf yi du noonu parce que ñoom naam cinquante personnes la ñuy wax ni moo war a nekk ci liste officielle délégation bi mais balaa ñuy dem Coupe d'Afrique ba ñoom woote nañu réunion ñi ñi invité ci ci réunion bi ñi nga xamante ni ñooy mooy membre membre comité membre cabinet wu Matar Ba eh, kii di directeur de la haute compétition ak eh, directeur de cabinet pour xamal leen ni vrai que cinquante personnes la ñu la ñu établir mais bëgg nañu liste bi dem ba soixante personnes mais bu ñooñu demee gis euh, ki nga xamante ne mooy kilifa bu ngànk sport au Sénégal muy Matar Ba moom nee na leen déet loolu mënul am parce que arrêté bi signé nañ ko di léegi nag fédéraux yi dellu siwaat ne ni comme loolu la il ñu defal leen moitié prime cest dire jour yi fu ñu amee dix francs ñoom ñu am cinq francs ñoom jàpp nañu ni ñu bénéficier aussi xaalis bi ak si largesse su président ko ku mel ni Matar Ba cité nañ Sow cité nañ ko ñaari ministre de la république est ce que ñoom loi permettre lañ leen am genre cadeau yi xaw est ce que loi permettre lañ tamit ñu bokk ci délégation officielle xaw nañu ànd ak dal parce que souvent nee nañu. Euh, Euh, euh, défaite day indi implosion c'est-à-dire day tas boo leen àndul boo leen àndul ak seen sago te victoire aussi même effet la mën a compo la mën a def donc man jaakaar naa ni viatique maa ko wuti ndam li mi nga xamante ne moom la Sénégal di wax depuis août deux mille vingt et un mm. léegi dafa war a nekk une réalité partout. nañu fexe daal ba ñaari ministre yooyu bu ñu gàkkal suñu victoire bi nga xam ne am nañ ko boobu ba léegi mu sedd lool suñu xol di yem a yéen fii euh, ci euh, journal bi euh, gannaaw le journal le 20h Sara Cissé dina fi teew jërë ngeen jëf ci seetaan bi.